faral sunu ëllëg kon jërë ngeen jëf noonu dong la bu nu ci kenn mag kon na ñëpp tàllal amin Mbakke jërëjëf Mbakke jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf. ay mbokk yi ay xeetu produit yu bees tax yu ànd ak qualité